13 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax asalaamaaleykum am internet suñu gaal 24 nuyu nañ leen ci yëndi nuyoo comme nañu koy faral di defee saa su nekk ci seen biir xibaar yu bees bi lee Aminata Touré ginnaaw rek ba mu doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi di yëy yàbb ci mbirum aji sax Sonko ci naka noonu sax muy xamle baaraamu tuuma bi leen duut rek ñoom ñi leen saar ak Sonko dañu ko daal rek war a arrêté ndax moom mi ma ngay xam la rek rendez yu suite ba tey nekkul waa Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo joxe ca noonu nag dàmb mbocc moom mi ma ngay daal rek yëy yàbb jëmale ci eh, kàddu Mimi Touré yooyu. Maître El Hadj Diouf niki démb mu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi ci naka noonu mu rek moom mi la ah, mu doon wax ci dossier Adji Sarr ak Sonko moom mi la nekk avocat bu Adji Sarr yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci mbir mi waaye nag yàq mbële ngaan ñi nga xamante ni rek ñooy eh, Sonko ak sax ay partisans bàyyiwut sax ñi nga xamante ni rek mooy ñenn ci journaliste yi ku ci mel ni Pape Ndiaye ca naka noonu nag mu ngay daal di fësal ay menaces yi nga xamante ni rek mu ngi koy jot mi ngi koy jot bés bu nekk ginnaaw dimanche bi ñëw weesu armée sénégalaise bi nag nekk di bombarder li nga xamante ni rek mooy euh, base bu mouvement des forces démocratiques de la Casamance ñu gën a xam ci MFDC jamono euh, Latif euh, Aydara moom le nekk li nga xamante ni rek mooy directeur bu centre africain bi d'intelligence stratégique yëkkati na ay kàddu ginnaaw rek ba mu doon janoo ak suñuy mbokk RFI. ci mbirum parrainage kii di Bougane Gueye moom nag njiital weli pand rek ki nga xamante mooy président Macky Sall ca Union africaine moom nag la muy xam la rek mooy ni président dafa daal di war a rek bàyyi li nga agenda bi nga xamante ni moo koy mi ngi koy amal ngir rek daal di mën a faagaagal yenn ci opposant yi moo waral ni ki démb rek moom la di Bougane Gueye ma ngay daal di wilipaan rek Macky Sall ca Union africaine Bébé Lassane Wagna moom mi lay amoon noof juróom ñaari weer sañu ñu woon ko ci teen ñu tegoon sax loxo ki nga xamante ni mooy wujju yaayam ak xaritu wujju yaayam jamono juñ toll nii nag enquête baa ngay wéy ñu tegaat loxo keneen ka ñu teg loxo nag maam la ci moom moo jur sax ki nga xamante ni mooy papaam ka koy xamle nag di ki nga xamante ni rek mooy seen dëkkandoo boobu la nekkoon xaritu wujju yaayam bi la moom la nag moo daal di def révélation lu ni mel wax ni rek ñoom ñooñu lañoo ko daal di sant ngir rek ñu daal di sànn bébé boobu la ci teen bi ci diir Europe ñaari weer ñaari sénégalais daan leen rey foofu ca Gabon ku mujj ki mi ngi wuyoo ci turu Saliou Diaw nekk doomu Matam moom la nag ñu ko daal faat rek ni ki lundi bi ñu génn uh, ca Port-Gentil nekk foofu ca Gabon. lu soxal mbirum ki nga xamante ni rek mooy couple bi di Mabo jamono ji ñu toll nii nag ñu doon fësal ne ñoom ñile uh, dañoo daal di divorcé Tange Tandian doon wax lu ni mel jamono ji ñu toll nii nag ñoom ñile ñu nga daal fësal ni rek mbir moom lee dara amu ci waaye ci biir loolu nag ki nga xamante mooy Tange Tandian ginnaaw ba ñu ko daal di lekk lincé ci réseaux sociaux yi moom mi le nag ba tey ma nga taxaw fa mu taxawoon rek wax ni mbir mi dëgg la ñoom ñaar na ci seenu diggante te lu koy findeer am nay vidéo yoo xamante ni rek ma ngi ak moom couple bi di Momo Wade ak Ndeye Soxna Sonko jamono juñ toll nag moom animateur bi di Momo Wade dañoo wax ni rek dafa divorcé ak soxnaam si di Ndeye Soxna Sonko la waral ñu divorcé nag suñu sukkandikoo ci sans limite moom mi joxe xibaar nday soxna nag moom ma leen dafa daal di rek maar ci sëy bi ndax nag liberté ba mu amoon maanaam du génn ak ay xaritam amatu ko ndax boroom këram gi daf ko daal di rek gàntal lu ni benn jamono ji ñu nag ginnaaw ba ñu daal di amee rek benn doom doom jooju sax léegi mu mat at ñu ngi ñuy xibaar ni divorce dox na ci seenu diggante amee internet Sunugal 24 ngeen taaxee lu bàkk bi jàll ñu gën leen a yaatal yooyu asalaamaaleykum maintenant Sunugal 24 ñu nuyuwaat leen ci gën di nuyoo comme ni ñu koy faral di saa su nekk ci seen biir xibaaru bés bile Mimi Touré ginnaaw ba mu doon jàkkaarloog taskatu xibaar yi mu doon yëy yàbb jëmale ci dossier Sonko ak Adji Sarr jamono juñ toll nag moom mi mu doon xamle ni rek baaraamu tuuma bu ñuy ñi nga xamante rek ñooy coalition Benno Bokk Yaakaar bi dañu ko daal rek war a bàyyi ndax nekkul ñoom ñooñu rek Ousmane Sonko daf koy jël ngir di ko jëmale ci seen kaw waaye ci naka noonu ki nga xamante ni mooy Dambo ci ginnaaw bu mu doon euh, jàkkaarloog ak waa Dakar Buzz moom indi na ay leer ci mbir moom le la muy xam ne rek mooy ni kii di Mimi Touré jamono juñ toll nii nag yitteem mooy rek mu daal di dëggal boppam ci élection 2024 yi ñu jëm ndax moom bi la jàpp na ni rek jamono ji bu nekkoon place am loolu mooy nekk yitteem wax tax na sax ma ngay xam ne ni rek ginnaaw seen leader bi di Macky Sall mënatul nekk candidat ci élection présidentielle yu 2024 yi waaye ca biir loolu Wade rek ma ngay xamle ni ne suite beauté nekk dem fa du délit te it nag suite beauté kër la rek boo xamante ni ku mu neex dem fa te it Sonko libre na dem fu ko neex ci ñoom ñooñu di wax loolu rek nañu waat bu fekkee mosuñoo dem ci benn bërëb boo xamante ni rek ku leen fa fekk xeeb leen tax na moom rek ma nga daal di rek défendre ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko di wax na dem fu ko neex ca naka noonu sax mu ngay dikkaat ak ñun Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ak kuram mag yi ñoom ñi di fësal ni yor ñu ay vidéo ak sax ay photo yoo xamante nii rek Adji Sarr moo leen ko moom la muy xamle ko yoroon fësal nañu ko bu yàgg Maître El Hadji Diouf mu doon jàkkaarloo ak suñuy yi taskatu xibaar yi ni ki démb na ay kàddu ko ci dossier Adji Sarr ak Sonko ginnaaw rek moom daal di nekkee avocat wu Adji Sarr moom leen ma ngay daal di yëkkati ay kàddu di yàq mbelengaan yi nga xamante ni rek mooy Sonko ak sax ay partisan maanaam ay farandawlam ku ci mel rek kii di Guy Guy Sagna euh, Barthélémy Diaz Khalifa Sall ak ñenn ci journaliste ku ci mel ni Pape Ndiaye moom mi la di Alain Diouf daal na leen ni rek yàq mbelengaan waaye yemu ci benn yoon ndax mu ngay daal di fësal rek ay menaces ak wax yoo xamante ni rek euh, teggene wut saa su nekk moo koy daal di jot lu toll ci juróomi téeméeru euh, message mu ne saa su nekk rek wala sax appel dañ ko ciy woo di ko yàq mbelengaan pour rek bëggu ko tiital waaye mu ne loolee mënu koo yàqal li nga xamante ni rek mooy liggéeyam ba tax na rek loolee mi ngi leen xamal ni moom mi le di maître El Hadji tiitalu ko benn yoon bi ñu weesu foofu ca Casamance boobaak léegi nag armée sénégalaise bi nag mi ngi daal di bombardé li nga xamante ni rek mooy mouvement des forces démocratiques de la Casamance ñu gën leen a xam ci MFDC a ju ñu toll nii nag kii di directeur du centre africain d' stratégique Abdou Latif Aydara ma nga yëkkati ay kàddu ci suñuy naataangoo RFI di xam ne ni lan moo tax bombardement yi di am foofu ci ndaw Salif Sadio yi moom Salif Sadio defoon nañu ko maanaam rek def li nga xamante ni mooy prise d'otage ñenn ci militaires yi ba am sax ñu ci jotoon a faatu nee na nag ñooñu mënuñoo digérer lu ni mel ba tax na saa su nekk rek seen liggéey mooy fexe bombardé li nga xamante ni rek mooy kuréel googu di MFDC. ci mbirum bébé Lassana Wagne moom mi la amoon juróom-ñaari weer jamono juñ toll nii nag te mu ñàkk bakkanam ñu ci doon dut baax mu tuuba kii di wujj yaayam ñu fësal ko seen beneenu dëkkandoo ci biir xibaar sax ñi ngi xamal ni kooku ku xamante ni mooy wujju yaayu Laasana boobu le woon sax maam bu jigéen bu Laasana weñ la moom mi la nag moo daal di rek jur papam moom nag lañ daal di tegaat loxo rek ci faatub gone googu le ba tey ci biir xibaar yooyu la nag kay fësal yooyu lay révélation du kenn ku dul seen dëkkandoo boobu nga xamante ni tegoon nañu ko loxo moom mi la sax nag moo daal di faatu gone gi ginnaaw ba mu daal di jàkkaarloog enquêteurs yi rek la muy xamle ni ginnaaw bi ko maami gone gi ak sax wujju yaayam bi sante rek ngir mu daal di ginnaaw ki nga xamante ni rek mooy yaayi Laasana jël gone googu rek ma lay nettali sax na moo ko faatee ginnaaw ba mu ko daal di jëlee rek daf ko daal di lëmas ci rek sër dem ba ci teen ba mu daal ko fay eh, sànni ca naka noonu sax ma ngay xam ne ni rek ñoom la ñoo ko bi ba ñu daal di lankee rek lu jëm ci mbirum parrainage jamono ñu toll nag njiital gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany ma nga daal di wili pandé ki nga réewum Sénégal di président Macky Sall foofu ci Union africaine moom mi leen di Bougane Gueye Dany ma ngay xam ne ni sax di président Macky Sall nekkit président bu union africaine ginnaaw rek ba CEDEAO ah, daal di ni mooy Yaya Jammeh ca di taxaw ak yeneen di dëkk yi ni fii ci Afrique rek suñu nekkee ci ay jafe-jafe wala ay conflit moom ba tax na jamono juñ toll yi nag ma ngi daal di sàkku rek kii di njiitu réewum Sénégal di Macky Sall mu daal di bàyyi rek jaay doole gi mu leen def li nga xamante ni mooy opposant yi ba tax na sax ngi daal di wax ni kii di président Macky Sall dafa daal di teg ab agenda rek ngir daal di mën a gàllankoor ñenn ci opposition bi ba tax na mu ne loolu loolee ñoom duñu ko daadi di rek nangu ci njeexaltalam mu ngi daal di wax ni rek président Macky Sall na daal di bàyyi rek li nga xamante ni mooy agenda bu muy teg ngir rek daal di mën a wàññi li nga xamante ni mooy opposition bi mu ne loolee def ko daal di rek war a bàyyi teyit ñu ngi koy nakkarlu bu baax ca gambe ci diirub ñaari weer ñaari sénégalais lañu fa daal di faat ku mujj kii mi ngi daal di wuyoo ci turu Souleymane Diaw nekk doomu Matam moom la nag ñu ngi ko daal di faat ndiki lëndi bi ñu génn ci Port Gentil bu nekk ca Gabon moom mi leen di Doudou Thiam nekk porte-parole des sénégalais bu nekk foofu ca Gabon ma ngay xamle ni rek ginnaaw ba mu doon dégganteeg suñuy naataangoo i rajo yi moom mi la ma nga daal di xamle rek ni commerçant yi yeew commerçant sénégalais yi yeewoo foofu ca Gabon ñoom ñi daal di nañu noppi rek dox doxum ñaxtu ak naka ci dëkk boobu loolee ngir rek daal di mën seen nakar ci seen doomu sénégalais yi ñuy faat saa su nekk foofu ca Gabon. Tange Tandian moom journaliste people bi ginnaaw ba mu daal di fësalee nag ni couple Maba bi rek naka noonu jamono juñ toll ñu ngi daal di démentir lu ni mel ba tax na saa su nekk rek ñuy fësal ay vidéo vidéo bu mujj bi sax ñu ngi daal di mel ni kuy gàlluwaare ki nga xamante ni mooy Tange Tandian dem sax bay wax ni rek naan ko occupe-toi de tes oignons mu ñaareel moo xamante ni fësal nañ ko ci wala sax bind nañ ko ci benn vidéo boo xamante ni rek fësal nañu ko waaye loolee nag kii di Tange Tandian nga taxaw fi mi taxawoon rek ginnaaw ba mu daal di waxee ne couple boobu divorce nañ dem sax bay wax la leen jotale moom la nag nee na mbir moom la dëgg la ndax sax yor na ay vidéo ak ay audio yuy firndeel que ni ñoom ñaar ñooñu le ah, daan nañuy divorcé am internet Sunugal 24 xibaar yi dañu koy jeexale ak xibaar bu triste couple Ndeye Soxna Sonko ak Maman Wade di nekk animateur foofu ca Sen TV jamono ji ñu toll nag ñu na seen diggante ñu koy fësal di waa sans limite ba tey si biir xibaar yi ñu ngi ñuy xamal ne sax la waral seen divorce Ndeye Soxna Sonko moom la nag jamono ji ñu nii moo daal di dem kër yaayam la ko waral rek moom la dafa daal di rek bëgg dundaat comme dund bu mu doon dund avant maanaam rek di dem di defi shopping wala sax di ànd ak ay xaytam resto mu ne loolee mënatul toog ci këram mu daal di rek dem fi nga xamante ni mooy kër yaayam ñoom ñaar ñi sax ginnaaw ba ñu daal di amee benn bant rek jamono juñ toll nii sax ñu ngi xibaar ne léegi mu am at ñoom ñaar ñooñu nag divorce dox na ci seen diggante Ndeye Soxna Sonko ak Momo Wade amee internet Sunugal 24 lii ñu doon ci xibaaru bés bi de di wax ngeen wéy duñ topp seen site d'information bi de di leen jox dig daje ba léegi